tawfeex ji rek moo ñi ñi moo moo Hizbut Tarqiyyah ñoo ko bokk. ñun tawfeex ji nag moo Hizbut Tarqiyyah ñoo ko bokk. ñoom dañoo dañoo am tawfeex rek. dañoo am tawfeex rek. tawfeex sëriñ bi rek la ñu am. tawfeex sëriñ bi rek la ñu am. te yaatu nag da ci am xaas. yaatu nag da ci am xaas. moom dafa def ci moom loo xam ne. moom dafa def ci moom loo xam ne. ñëw na. néew na. ni mu ko def ci ñoom. ni mu ko def ci ñoom. loolu moo waral nag. loolu moo waral nag. dañ ko doon liggéey bi rek. dañ ko doon liggéey loolu rek. bi liggéey bi noppee. bi liggéey bi noppee. moom sax. moom sax. yëg na ko yëgu ko. yëg na ko yëgu ko. dafa mel ne fi mu toll woon. dafa mel ne fi mu toll woon. li weesu gisatu ci woon dara. li weesu gisatu ci woon dara. ndax fabu fabu fabu fabu fabu métti bu rëy. ndax fabu bu métti bu rëy. fas yéene gën a liggéey Sëñ Tuubaa. fas yéene gën a liggéey Sëñ Tuubaa. foofu la demee. foofu la demee. xam ne yàlla moom day ful jëf. yàlla moom day ful jëf. te jëf na jëf waaye day fay yéene. waaye day fay yéene. kon yéeneen jooju. kon yéeneen jooju. yàlla da koy boole jëfam jooju. yàlla da koy boole jëfam jooju. fulal ko jëf yi fulal ko jëf yi. fay ko yéene. fay kon sa ñaata kon sa ñaata ngoog. yéen ñi ma àndaloon nag des. ñun mu àndaloon nag moo des. yéen bokk tawfeex bi. ñun ñoo bokk tawfeex bi. du ma dolli du ma leen dolli ci yéen dara waaw loolu. leen dolli ci ñun dara. xanaa xanaa xanaa xanaa lu mel ni yaar. xanaa lu ñaar yaar. nasu gi moom am na ba noppi. nasu gi am na ba noppi. waaye la ma ciy bëgg nag muy gën a nasu ci bëgg nag nasu rek. da ca des da ca des nag. nee na la ca des nag. mooy am kilifa. mooy am kilifa. bu mat kilifa. bu mat kilifa. suñu yaatu kilifa la woon bu mat kilifa. nee suñu yaatu kilifa la woon bu mat kilifa. waaye sëñ Youssou Diop mii. nee na sëñ Youssou Diop mii. bu ma gisee sañu at. bu gisee sañu at. gis sañ yuusu ci biir. day gis sañ yuusu ci biir. bu ma gisee sañ yuusu. bu sañ at ci biir. day gis sañu at ci biir. yuusoo ngoog. pour yuusoo ngoog. jërëjëf nag moom ci yéen. yéen ma am nga loo sa bopp. am na loo xam ne sa bopp. am nga lu la lu la lu la indi woon ci am na lu la indi woon ci su tawee. loolu nag. loolu nag. na nekk ci kanam. na nekk ci kanam rek. kenn ku ne ci yéen. kenn ku ne ci ñun. loolee. loolee. du teg du ci kanam rek. na ko teg ci kanamam rek. bu mu nangoo dara jaar ci diggante. bu mu nangoo dara jaar ci diggante. te bu mu bu mu bu mu nangoo taxaw. bu mu nangoo taxaw. bu mu nangoo geesu. bu mu nangoo geesu. na wéy rek. na wéy rek. bu dëggoo rek. bu dëggoo rek. dañ koy wommat. dañ koy wommat. loolu. ñàkkul ngeen ci xam. ñàkkul lu ngeen ci mos. lu ngeen ci ñàkkul lu ngeen ci mos ñàkkul lu ngeen ci xam. nee na ñàkkul luñ ci mos ñàkkul luñ ci xam. yoon waa waaye yoon waa ngooñ. waaye yoon waa ngooñ. jëmmi mbooloo mi moom. waaye jëmmi mbooloo mi moom. na gën a nasu. na gën a nasu. nañ gën a nañ gën a am kilifa te gën a nangul seen kilifa. nañ gën a am kilifa gën a nangul suñu kilifa. ngeen ko defee rek. nee na bu ñu ko defee rek. day day gën di yomb rek. day gën di yomb rek. waaw ndax womatu rek la. womatu rek la. ne ma ko daanaka wax ginnaaw ginnaaw dañuy womal nag. ginnaaw dañuy te nas bi ngi ci suñu suñu bakkan. na nas gaa na los yu yolom rek. na los rek. yolomee rek. na los yu yolom waaw rek. da def li bëgg. da nga def li ñu bëgg. te doo sonn te doo sonn. kon kat noonu dëgg la de maa ngi sant bu baax maa ngi sant bu baax mbokk yu baax. ñu ngi sant bu baax mbokk yu baax. bu baax a baax. sant bu baax a baax a baax. xool rek sëñ ñoom sëñ Tuubaa. xool ci ñoom rek sëñ Tuubaa. na ma ko daan waxee rek wax naa ko bu yàgg de. na ma ko daan waxee rek nee na wax na ko bu yàgg. moom ay sang laa leen def. moom ay sang la leen def ñu bokkal sëñ Tuubaa ay sang laa leen def. ñu bokkal sëñ Tuubaa ay sang la leen def. moo xam dañu dama dama moo xam moo xam moo xam dama leen a jur. moo xam dafa leen a jur. moo xam wala dañu ma leen a jural. moo xam dañ dañ ko dañ ko leen a jural. ñun ñëpp lay boole. ñun ñëpp la boole di xool sëñ Tuubaa ci di xool sëñ Tuubaa ci moom kon eh, maa ngi sant bu baax